mbokk ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM nu ñu koy defee dimanche buy jot fii ci euh, émission li ci euh, gox bi euh, gox bi nag tey di dalal ki nga xam ni moom moo di Djibril Thiaw monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni ngeen nangoo invitation bi ci réew mi FM ak réew mi TV. alors maa ngi lay fay Mbemba di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan si. réew mi FM ak réew Rewmi TV. Mhm. la télévision di peuple. <laughs> Euh, di nuyu ñëpp di euh, delloo njukkal aussi Sénégal. Mhm. di leen euh, sargal si bésu màggal bi ñu jógee d'abord. Mhm. ak si gàmmu bi. dëgg di ñaan yàlla rek lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nangu ko. def koy xéwal def ko ci réew mi. def ko ci président de la république ak ndax mbir woyof. def ko aussi ci suñu kilifa diine yi. Mhm. yàlla yàggal leen fi wéral leen. am solo ñu gën a kunne di uuf njaboot gi. Mhm. di ñaan rek euh, sunu borom lépp loo xam ne rek euh, ñaan nañ ko fa mu nekk rek loo xam ne luy am solo la ci mhm. askanu Sénégal mais monsieur le dañuy dooree ci li nga xam ne moom moo jëm ci lubbite l'école yi xam nga ni ci semaine bii la ñu ubbi li nga xam ne moom moo jëm ci l'école jàngalekat yeeg élèves yëpp dem nañ li ñu lay njëkk a laaj d'abord Réfane ndax lépp yemb na pour école yi wala ndongo yi euh, door li nga xam ne moom moo jëm ci njàng bi. waaw jërëjëf Mbemba euh, bon comme ni nga ko waxee donc semaine bi ñu génn ñu ngi woon ci ouverture classe yi ci ci Sénégal yëpp euh, Refane nag bon il faut peut-être avouer que foofu bëriwul jafe-jafe. parce que bokkuñ ci école yi inondé foofu classe yi école yi du ñu inondé. Mhm. vraiment du ñu amul inondation mhm. peut-être maintenant y a problème mu déserbage problème mu désinfecté locaux yi problème fourniture aussi mhm. yooyu yëpp c'est des problème qui se yoo xam ne bon dina ñu dinañ ci def lu ñu man pour que vraiment le plus rapidement possible élèves yi jàngalekat yi tous les acteurs mën a nekk ci condition mhm. yu ñu yu ñu démarrer seen activités yi parce que tamit c'est c'est extrêmement important euh, dès le début de l'année bu ñu perte temps rek day tax day gréver quantum horaire bi mhm. en fin d'année souvent ñuy daw di ko rattraper muy të donc li tubaab di wax rien ne sert à courir il faut partir à point donc je pense que teel a jóg euh, def suñu kem lay kàttan rek pour bañ a perte temps bu bëri ci début d'année scolaire bi mhm. yéen abri provisoire sonul leen foofu ah si si si euh, il faut avouer qu'il y a beaucoup mhm. euh, je pense que nous sommes à 22 abris provisoires 22 monsieur le maire waaw bari na bari na trop mais loolu aussi boo gisee li ko waral en fait euh, il faut avouer que les trois ou quatre trois ou dernières années yi ci ginnaaw pas yi ah peut-être a cinq ans ci ginnaaw vraiment dañu jëloon suñu suñu ressource yi ñu def focus sur le lycée mhm. ak le collège de Réewmawo parce que boobu amaguñu woon lycée euh, Réewmawo amagul woon collège et le ministère de l'éducation nationale nous avait dit que dootuñu ubbi lycée ci abri provisoire mhm. donc il fallait construire mhm. ñu construire pour le lycée ils avaient dit la même chose il trois ans ci ginnaaw ñu construire pour le CEM de Réwmawo donc xëy na yooyu bu ñu ko daw defoon si buñu ko defoon si école élémentaire yi. Mmh. kon vraiment dina daan dana fekk mu wàññi abri yi. Mmh. mais je disais toujours aussi je préfère ma am sama élève ñi am entrée en sixième ma garder leen Réwmawo ko du ñu bañ a génn di dem fu sori seen jàng di yàqu. Mmh. sama élève yi am BFM Réfane ma garder leen Réfane ñu def fa seen cycle lycée te abri provisoire moo ma gënal. ba bañ a am abri provisoire te élève bu admet ba amee BFEM ñu di ko yóbbu Bambey wala feneen. jàngat mu ci tamit jàngee ci abri provisoire itam nekkul ay conditions yu am solo yoo xam ne. non du du conditions yu am solo ba gënul. mais il faut voir que ñëpp jaar nañ ci abri provisoire aussi mm-hmm. en et tere terewul tey voilà yàlla da def na. suñu jàng ba mais atum tey soppeeku war na mën a foofu laa jëm si sax cest bu ñu jëloon tey li ñu amoon ñu def ko ci abri provisoire yi. kon ni day fekk élèves yi am BFEM reefaan ñu di leen yóbbu Bambey wala feneen seen jàng mën na fa yàqu. donc garder élèves yooyu reefaan te amay abri provisoire je pense moo ma gënal. <laughs> e Dieu à fait que vraiment euh, sant yàlla maintenant abri provisoire yi aussi il faut reconnaître que de plus en plus. Euh, parce que état daf daan jox def li ñuy wax daf daan décentraliser la construction des des des des mhm. mais at yi passé dafa am benn programme boo xam ne dañ ko tuddee programme de résorption des abus provisoires. géré par le ministère de l' éducation nationale. programme boobu je pense que bu yegsee Réfane donc xëy na dina kon yegseegul Réfane non euh, yegseegul mais ci ci phase yi. am na ci phase yoo xam ne déjà y a des écoles de Réfane qui sont qui sont ciblées. Mm ñu mais commencé guñu construction bi. mais PACASEN amoon na fi waaw pourquoi yéen jëlu leen li nga xam ne moo di seen dispositif wala ci mairie bi ngeen visé wu ci PACASEN bi li ngeen bëggoon mais dafa mel ni yéen priorité bi dangeen ko def feneen. non en fait PACASEN bi bi démarré mooy PACASEN bi nga xam ne c'est les anciennes communes. ah mm -hmm. les anciennes communes toutes les communes yi nga xam ne dañu devenir commune suite à la communalisation intégrale. seen PACASEN commencé gul. Mm-hmm. d'ailleurs PACASEN rural lañ ko tuddee. commencé gul mais ñun ci voilà voilà PACASEN rural boobu nag Refane mu ngi ci te ñun bi ñu laajee suñu priorité mm-hmm. euh, abri provisoire yooyu la ñu def. ak euh, yeneen yoo xam ne mais suñu première priorité mooy. Mm-hmm. résorber les abris provisoires donc tey bu ñu amee financement PACASEN. Euh, c'est sûr que on va résorber tous les abris provisoires yi nekk ci commune bu Refane ci suñuy priorité la bokk mhm. ak peut-être de l'eau ndox mhm. waaw ak euh, je pense euh, dugal nañ ci aussi santé mhm. parce que am nañu ay ambulance certes mais dañu bëgg a renforcer am vraiment ay ambulance yu bees tàq pour les pour ne pour les postes de santé. Mhm. yooyu ce sont nos priorités. justement ci santé googu nga junj ci la ñuy des euh, dégg nga docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mooy ministre bi ñu dégg wàllum paj mi ay am na ay siro sëqët yoo xam ne dafay dal xale yi rey na 66 personnes fële nga xam ne moo di ci diwaanu Gambie. Mhm. Euh, est-ce que tey ci jamono juñ toll nii wàllum santé est-ce que waroon nañ mën a xalaat loolu Sénégal est-ce que jotul tey mu xool ginnaawam bu baax ndax médicaments yi ni muy duggee ñu daal di koy saytu ku lu ñu wóor ni sax ce que nekkul di circuler sais hein, Sénégal je pense que foofu aussi il faut leur tirer le chapeau parce que di nga dégg très souvent la douane wala la gendarmerie en tout cas les forces de sécurité ñu intercepter ay ay cargaison de médicament yoo xam ne jaarul ci cycle normal bi. Mhm. te comme ni ñu ko waa santé yi waxee médicament même bu baaxee bu génnee te jaarul ci cycle normal bi rek dañu considérer ne baaxatul. donc je pense que foofu il faut tirer le chapeau au au au Sénégal. Mhm. au ministère de la santé ak vraiment les force de l'ordre mhm. la la douane aussi. Mhm. ils sont en train de faire un excellent travail. mais est-ce doy na si communiquer rek. non non sax xam nga tamit communiquer baax na il il faut mais ñoom yemuñ ci communiquer ils seront plus vigilants ci frontières yi même si nañ ko reconnaître aussi contrôler frontière. entre Sénégal ak Gambie c'est extrêmement difficile. j'ai j'ai j'ai le Saloum. da ngay daw mu yàgg ñu ne village bi gàmbi la bokk. Mhm. village bi Sénégal la bokk. Mhm. donc des choses yoo xam ne benn la ko en fait benn la mais je pense que l' essentiel c' est de rester très vigilant. vigilant. maintenant pour man le gros du combat. Ouais. ça doit au niveau des famille que chaque chef de famille ne man sama doom garab bi ma koy faje mhm. pharmacie lay jóge là c' est extrêmement important. parce que bu ñu ko jëndul rek bu famille yi génn dem jënd ko. du lor kenn donc na na famille gën a vigilant li nga xam ne moom la ñuy faje seen doom ordonnance li nga xam ne moom la ñuy fajoo ñoom seen bopp kenn ku nekk li ngay fajoo mhm. nga dox dem ba ca pharmacie ba nga jënd ko mhm. nga génn ñu maanaam ñu moytu les médicament de la rue buñ foofu la xeex bi ah day lore de day lore mhm. parce que 66 xale des comme ça dans un pays limitrophe kooku ça veut dire que c'est extrêmement dangereux c'est un produit extrêmement dangereux te Gambie lu ñu jege la. loolu loolu laa wax sànq. ñu ne hmm. Gambie benn la ñu pour nga contrôler la frontière là entre le Sénégal et la Gambie c'est extrêmement difficile. Hmm. Saalum Saalum yi ci bëri ay double nationalité la ñu yore. comme de l'autre côté du sud vers la Casamance. Hmm. ñu ci bëri ay double nationalité la ñu yore dañuy xëy dugg euh, ne maa ngi dem Gambie génn dem Sénégal suba donc avec leur charrette à dos d'âne euh, voilà des choses yoo xam ne mënuñu ko sax imaginer. donc c' comme c' est comme ku jóge am na zone yoo xam ne mu mel ni yow nga jóge Pikine di dem Guédiawaye pratiquement c' est la même chose. c' est une frontière boo xam ne. Mhm. mënuñu ko contrôler mënul étanche. à 100 pour cent à 100 pour cent mënul nekk ñu jéem ay pexe rek. waaw donc bu ñu jéemee pexe yi ba pare la douane na renforcer euh, sa vigilance. Mhm. les forces de l'ordre pareil mais fondamentalement njab waroom njaboot yi. Mhm. famille yi na ñun. taxaw lànk ne duñ jënd médicament de la rue duñu jënd médicament lu dul ci pharmacie mhm. bu boobaa vraiment je pense que problème bi dinañ ko mën a endiguer wàllum santé ci wàllum refaan euh, euh, refaan santé bi fu mu toll ndax ay amélioration yu ñoŋ ñu ngi ko fay xaar tey euh, yaa ngi doon junj sànq li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum ambulance xanaa léegi mën nañ jàpp ni léegi paj mi léegi ñoŋ na foofu ca yoon refaan waaw sant yàlla sant yàlla parce que comme ni ñu ko waxee woon ah, man dama gëm pyramide sanitaire. Mhm. dama gëm aussi faju parce que ku fajuwul rek daanaka rek amoo dara boo wérul amoo dara euh, Refane comme je j'avais dit ñun suñu ambition mooy euh, ku feebar faju mhm. non seulement nga faju mais nga am accès à un médecin à un médecin voire même à un spécialiste. jë mhm. euh, a fait tey bëri nañu ay cases de santé c'est vrai que dinañ dolli yeneen pour gën a maye la quoi. ah politique nga mënee la waaw. Euh, ensuite am nañu trois postes de santé et heureusement Dieu a fekk que tey le centre de santé de Réfane existe mm-hmm. maanaam Réfane sur le papier le ministre Abdoulaye Diouf Sarr avant mu fay jóge mm-hmm. signé na l'arrêté qui crée le centre de santé secondaire de Réfane donc euh, là c'est extraordinaire c'est le deuxième centre de santé du département de Bambey il y avait un seul centre de santé à Bambey commune mhm. le deuxième centre de santé du département de Bambey mhm. Réfal lañ ko créé te actuellement euh, ASAD association benn association la boo xam ne ay doomu Réfal ñoo ko seq mhm. ànd ci ak mairie bi commencé nañu construire centre de santé boobu maa ngi liggéey aussi ak le médecin chef de région monsieur Dieng mooy le médecin chef de région de Diourbel ma koy nuyu au passage di ko remercier di remercier le médecin de département aussi du madame Kane remercier aussi le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Mhm. vraiment processus bi ci moom la jaar moom la jaar. Ah, di di tàllal loxo aussi vraiment à son successeur mhm. madame Marie Khomesse Ngom Ndiaye. pour ñoom aussi ñu ñëw dugal seen loxo. Mhm. récemment rek j'ai été à la Diem ànd ak le professeur John pour ñu valider le pour ñoom ñu validel ñu le plan bi nga xam ne moom la ñu bëgg a construire le centre de santé de Réfane. donc loolu c'est avancé bu am solo la. centre de santé le le deuxième du département de Bambey. donc là c' est extrêmement important askan bi fa yeewoo itam c' est seen bopp mais nañ ci gis seen bopp de seen xaalis di cotiser. Mhm. pour boobu yegg. askanu Refat ñooy cotiser tey. xaaruñu état non xaaruñu état mais état euh, am na ko def. Mhm. au temps de Abdoulaye Diouf Sarr mhm. que son successeur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. que nous saluons au passage qui est de qui moom aussi ñu ngi koy. Ah, tàllal loxo ah a ñàkk ni mbir mi dafa war a accéléré léegi. Euh, waaw mais nag du elle de la région de Diourbel mais elle est ministre de la santé du Sénégal. du donc nous même bu ñu dëkkee ak moom. ça ne pas dire que ñoo ko gën a mérité waa luga wala waa Saint-Louis. Mhm. li mun a war a defal la war a defal waa Louga moom la war a defal waa Saint-Louis. Mhm. et ku xam Marie Khemesse aussi xam ne c'est une personnalité très équilibrée. Mhm. koo xam ne euh, Sénégal la fiy nekkal mais comme l'État est une continuité aussi. da nga xam ne. ñu di sénégale aussi hein. la nga xam ne moom la Abdoulaye Diouf saar yéene woon je pense que dina ko dina ko mottali. incha allah mais askanu Refane itam dañuy soxla feebar mun a fajoo seen dëkk ba na génn yaa ngi koy wax nii est-ce que dafa war a xaar itam. non xaarul parce que ñu ngi tabax déjà déjà ñu ngi ci construction bi. mais ensuite euh, c'est que li ma li ma déggoo ak le médecin chef de région mooy ñun au niveau de la mairie ñu jéem a créer les conditions. ci existant bi maanaam poste de santé ba nekk Réfane tey ñu jëm fa dolli ay quelques salles jéem a réaménager jéem a rééquiper. pour mu ah, déjà mu affecte personnel bi nga xam ne ñoo war a nekk ci centre de santé bi de sorte que ñoom ñu commencé seen liggéey en attendant construction bi pare xam nga construction quelque part aussi. waaw day jël ça peut prendre du temps. Mm-hmm. mais nous nous allons faire le nécessaire. pour réunir les conditions yi nga xam ne bu ñu ko réuniree euh, euh, centre de sant bi dina mën a commencer dinañu mën a. Euh, affecter le médecin chef mm-hmm. mën ñu affecter dentiste mën ñu affecter pédiatre ceci cela si lu donc nous nous sommes en train de travailler mm-hmm. pour réunir toutes ces conditions là nga xam ne bu personnel bu ñëwee rek commencer liggéeyam dans l'existant mm-hmm. en attendant construction bi pare mën nañ ne euh, euh, diwaanu Réfane Euh, yéen a ngi ko tàmbalee am soo soulagement ak tali bi nga xam ni daanaka defaral nañ leen ko foofu. ndax am foofu lay am wala am na yeneen plaidoiries yi nekk ci kanam. ah am na <laughs> vous savez ñu Réfane toujours loolu laa leen di wax dama leen di wax bu leen bu ngeen di laaj da laaj lu jafe. Mhm. ensuite bu ngeen laajee lu jafe bu loolu bu sottee rek laaj leen leneen parce que mooy tax nit ñi dox aussi. Mhm. tali boobu jafe woon na lool mais vraiment euh, le ministre Mansour Faye. Mhm. Euh, ministre des infrastructures des transports terrestres des du désenclavement. Mmh. ak euh, le directeur général du fonds d'entier ci autonome Mamadou Faye. Mmh. mon collègue frère et ami. Mmh. ma remercier leen ci bu baax a baax a baax. sant naa leen ci gërëm naa jéego lañ ci dox. waaw oui oui d'ailleurs c'est le fonds d'entier routier autonome. ci benn convention bu ñu signé ak mairie bi ci lañ ko financé. pour pour ñu defar ñu defar route boobu. maintenant ñu ngi xaar aussi route d'Angalma Ndereb. Réfane réew ma Toul boobu moom ñu ngi koy xaar. c'est vrai que Agirout lancé woon na le marché am na entreprise bu ko gagné woon mais entreprise bi dafa ñëwul. Mhm. donc ils sont obligés de relancer le le marché. mais waaw mais bu fekkoon ni entreprise bi gagné woon marché bi ñëw na exécuté kon ba léegi aussi yoon boobu pare. Mhm. mais dafa des aussi parce que Refat dafa bëri ay dëkk yoo xam ne. ay piste ay piste la te dafa bëri suuf. Mhm. boo dee ay mois d'avril mois de mai. pour nga accéder ci dëkk yooyu dafay jafe trop suuf si dafa bëri. Mm. yooyu aussi vraiment nous sommes en de faire le plaidoyer pour que ñu mu am à part de Réfane. Mm-hmm. yoon dem ba Mbambey Mbootal à part de Réfane yoon dem Nguy Càndige dem Kombelaan à part de Réfane yoon dem Réew Mao ainsi de suite. Mm-hmm. parce que foofu dafa bëri suuf trop bon de toute façon yoon bi désenclavé Nderep aussi. dina désenclavé boox ak mbaafay ak njarnu mhm. je pense que à part de Réfane aussi ñu am yoon boo xam ne bu demee ba Mbambey kon ne dem Lambaye mhm. parce que souvent aussi euh, de plus en plus nit ñi ñu ngi dem diggante Réfane ak Lambaye d' abord c' est c' est le chef lieu d' arrondissement ensuite y a un marché mhm. Réfane am marché waa Lambaye dañuy jóg ñëw ñëw marché Réfane le mercredi dem marché Lambaye donc il est bon ñun xool nan la ñuy def ba yoon yooyu exister mais aussi nous sommes en de travailler ci yoon bi nga xam ne boo génnee sorti autoroute Touba nga mën a ñëw Réfane directement. Mhm. te doo jaar xombal. dem jaar loolu tam gàllankoor la balaa muy def tour bi. waaw parce que fi mu nekk boo génnee sorti Touba bi. da ngay dalaat tëli ba xombal jóge xombal ñëw Kaba jóge Kaba soog a ñëw Réfane. Mhm. léegi ñun ñoo ngi liggéey pour que boo génnee sorti bi rek. nga dugg nga génn noonu jaar Néorane. dugg Réfane. Mm-hmm. ça fait sept kilomètres maximum. Mm-hmm. loolu aussi bu ñoo ngi nous soo en train de travailler là-dessus. donc day ñëw bu ñëwee ba day dugg mbos rek ñëw ci jumaa ji. Mm-hmm. daal di raccorder tëli bi nga xam ne moo jógee Kaba. mais monsieur yaa ngi wax nii lu am solo cité nga ay localités yu bari est-ce que tey. intercommunalité bi nga xam ni nit ñi ñu ngi koy wax est-ce que yéen euh, vous travaillez sur ça au niveau de de Réfane ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum intercommunalité. waaw ñoo ngi ciy waxtaanee d'ailleurs euh, waxtaan naa ci ak euh, collègues yu bari ah mais bon c'est vrai que bi élection yi jàlleeg léegi dafa yàggagul. waaw mais je pense que intercommunalité boobu nous sommes obligés d'aller vers ça. parce que li nga fi ah, li nga fi laal lii yëpp. ay gox yi la yoon bi jógee Réfane. waaw laal na yu bari. yoon bi jógee Kaba ñëw Réfane. Mhm. yenn saa yi nit ñi dañuy fàtte ñun ñoo ko porté parce que Réfane la jëm si mais en réalité sur les six kilomètres les quatre kilomètres ci biir commune Ndiéyène Sirakh la nekk. Mhm. donc ça veut dire que Ndiéyène Sirakh nous sommes obligés de travailler avec cette commune là. Mhm. nous sommes de travailler avec commune de Touba Toul. parce que pour l' essentiel. aussi ay mé des rues de dix mètres mooy séparer suñu suñu suñu suñu yi. Mhm. da gis mbedd bi ñu ne kër gii rek commune Réfane la bokk kër gi commune Touba Toul mhm. les deux maisons séparées par une rue de dix mètres ñi ko moom sax mën nañu bokk bàyyi. wala ñu bokk ndey ak bàyyi. Mhm. donc nous sommes obligés de travailler avec cette commune la commune de Ngogom. yoo xam ne foofu aussi suñu kii dafa dafa jegeñee la commune de Lambaye. je pense que de plus en plus surtout benn commune bu koy porter day jafe. mën na indi ay rentabilité surtout ci wàllum koom yaa ngi ko doon wax marché bi. mën na nekk eh, marché hebdomadaire boo xam ne ci localité lay métti. mais bi daf ci am solo. waay tu hmm, dama koy faral di wax gisoo marché Réfane. Mhm. bëri na tey des capitales départementales yoo xam ne ceeb Réfane la gën a yombe ni ci capitale départementale yooyu. ciment Réfane la gën a yombe ci capitale départementale yooyu parce que en fait accessibilité bi ñu am depuis bi tali bi ñëwee tali bu xonq bi d'abord. ensuite. route goudronnée bi vraiment dafa booster la commerce ci marché ci marché koom-koom bi ci marché Réfane mhm. daf ko booster ensuite dem dikk bu yombee rek koom-koom bi il faut mu il faut mu il faut mu yëg ko mhm. te loolu nag lañ bëgg mu bañ yem ci Réfane bi nga xam ne mooy chef lieu de de commune mais mu dem ba ci d'autres village comme Ndereb comme comme Réwmao comme Boox comme Mbaafay Njarnu ainsi Kombelaan Nguy yooyu aussi bu ñu amee accessibilité ñu ñëw reef ñëw reefaan yomb ci ñoom. Mhm. waa reefaan dem foofu yomb ci ñoom de sorte que yi ñu daan jënd Dakar di ko teg ci horaire yi sax dañ koy bàyyi. di ko jënd directement. Mhm. au niveau de Réfane. Mhm. te bu boobaa aussi c' est c' est Réfane qui va gagner c' est de Réfane moo ciy gën a jël vigueur. te loolu dong lañ soxla en fait. te loolu aussi mooy rôle commune nan lay def. ba commune bi économie bi dox. Mhm. social bi jàmm ji dox. lu am solo la waaw donc ci loolu ñoo ngi ciy liggéey bu baax. Mhm. et am na nu yàqeen ne suñu kilifa le ministre Mansour Faye. Mhm. Ageroute Fera. dégg dina leen dégg ñëpp jàppale incha allah. <laughs> seen émission gox bi di dalal ki nga xam ne moo di docteur Djibril Thiaw euh, yéen a ngi koy suivre ci euh, seen télévision Rewmi TV ak en direct ci réew FM monsieur le maire. fonds de dotation fonds de concours. ñu bari ngi jooy ah xam nga yéen tamit xam ma xam yéen tamit si ngeen bokkam déet. ñëpp la laal c'est-à-dire ñëpp la laal ah xam nga yooyu c'est des fonds yoo xam ne état central moo koy distribuer collectivités territoriales yi. loolu tax quelque fois euh, su ma gisee ay nit ñu naa dañ jox waa APR bàyyi ñi ci des si archi faux. Mm-hmm. commune aujourd'hui au Sénégal jotul fonds de dotation jotul fonds de concours am. on vous a expliqué c'est quoi le retard lan moo waral retard bi. waaw j'avoue que Euh, mais nag quand même il faut reconnaître que métti na trop ci commune yi. Ah. parce que tamit euh, c'est des fonds yoo xam ne communes yu bëri moom la ñu yaakaaroon pour def yenn yi. Mm-hmm. surtout que c'est des fonds surtout fonds de fonds de dotation bi nga xam ne c'est des fonds nga xam ne dañ la ko jox. Mm-hmm. pour nga régler ci des dépenses liées aux compétences transférées. Ouais. compétences transférées yooyu éducation ci la bokk. Mm-hmm. donc tey les dépenses liées à l'éducation notamment les fournitures scolaires. mais tey communes yëpp waroon nañu ko joxe mais ñu ko joxe parce que état bi leen délégué loolu xaalis bu mu ci waroon àndal ñëwagul. Mhm. donc ça pose beaucoup de problèmes pour les communes c'est vrai am na commune yoo xam ne nag seen seen i recettes may na leen ñu def yeneen pexe. pour joxe ay fournitures scolaires. Mhm. mais pour l'essentiel des communes du Sénégal tey mënuñu joxe fourniture scolaire. Mhm. parce que xaalis bi waroon accompagner transfert de compétence bi. boobu ñëwagul. mais bon espérons dootul yàgg mais c'est man bon je suis maire depuis mais c'est la première fois que ça arrive. te amul benn explication bu ñëw ci seen à votre niveau que ni lii moo waral retard bi. non franchement je n'ai aucune explication. Mhm. maa ngi bokk na euh, bon au niveau de l'AMS l'association des maires du Sénégal je reçois régulièrement les informations. oui euh, je reçois aussi régulièrement les informations même au niveau de même si bu fekkee loolu loolu ñun rek la concerné. Mhm. nous de la mouvance présidentielle. Oui. nous avons un mhm. les élus républicains boobu aussi maa ngi ci groupe bi. je reçois toutes les informations mais y vraiment jusque là mhm. benn information buy ñëw pour expliquer retard boobu mhm. alors là est-ce que du ñu ne euh, association des maires du Sénégal rôle bi mu waroon jouer ñoom ñoo lajj ci mbir mi toog ba situation bi ñu mel Euh, demoo sàkku ci gisee ak ministre bi mun a xam les tenants et les aboutissants wax nii lan moo expliquer retard bi mais calme lañ dégg amul kenn amul communiqué au niveau de l' association des maires lu dul benn maire ak ñaar yi di koy waxantu mais est ce que seen rôle joué nañ ko ba mat sëkk kon. ah je pense que xëy na ñu ngi ci aussi hein parce que souvent aussi il y a yoo xam ne boo koy def. jarul coow lu bari de. ah monsieur le maire bu fekkee dañ ko war a jox tamit. c'est que xëy na ñu ngi ci je ne Euh, c'est vrai que voilà ceux qui sont au niveau de l'AMS c'est c'est des amis que je connais très bien muy le président Alioune mm-hmm. muy mon frère le secrétaire général Baye Dione je pense ils sont en train de faire un très bon travail là-bas mm-hmm. maintenant je ne sais pas fu où que lan ban jéego lañ ci dox mm-hmm. mais am naa yàqin ne tooguñu rek di di seetaan je pense tooguñu rek di seetaan association des maires du Sénégal Aliou Sall n'est plus maire euh, tey renouvellement bi kañ la oui non non c'est ça ne va plus tarder c'est sûr que ça ne va plus tarder mais xam nga bi ñu jógee élection yi léegi yàggul ensuite am na yu fi dox. les élections législatives. élections HCCT ah donc tout ça c'est des contraintes yoo xam ne. Mm-hmm. mais bon li wóor mooy dootul dootul yàgg dootul yàgg parce que Aliou c'est pas quelqu'un qui s'accroche à un poste. waaw mm-hmm. je le connais bien. waa Aliou du s'accroché wu ci cos poste kon xanaa yow bëgg nga. oui j'avoue que non franchement. Mhm. doo candidat ci euh, succession Aliou Sall. non non du ma candidat. Mhm. franchement du ma candidat. quoi le choix. non parce que j'ai déjà trop de choses <laughs> dans ma tête quoi te bëgguma jël aussi responsabilité boo xam ne doo ko doxee la mu war mhm. déjà man maa ngi daw diggante direction bi la mairie l'université c'est de c'est assez doy na. vraiment pour man nañ ko jox koo xam ne il a le temps. de s'occuper de l'AMS. man franchement non bëgguma mhm. bëgguma yaa Omar Ba dégg nañ fii le maire de euh, Guinguinéo Omar oh, Ba Omar Ba le maire de Ndiop ak ki nga xam ne moom mooy euh, maire bu gi neew Guinguinéo euh, Latmingué du moins mm. ñoom itamit yëglu nañ ne bëgg nañ jiite li nga xam ne moo jëm ci AMS mais mais ils en ont le droit hein non le droit tous les maires du Sénégal ku ci bëgg am nga droit yëkkati loxo ne bëgg naa te muy Omar Ba il connaît bien l'AMS il a été secrétaire permanent de l'AMS pendant très longtemps hmm. am honor ba ko xam AMS la muy euh, docteur Macoumba aussi Macoumba Diouf man je pense ouais. que c'est une bonne personnalité mm -hmm. pourquoi pas parce que ku am ku am ku am pas-pas la ku ku xam li muy def la aussi hmm. ku yëngu donc euh, ñoom ñëpp ils ont le bon profil hein mm et puis bon de toute façon l'essentiel mooy. ku eh, bëgg à chaque fois yéen tamit euh, c'est le candidat le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui désigne ki ngeen war a jàppale. AMS wala ku jug la yëkkati loxoom ñu jàppale. non xam nga quand on dans une coalition. tout se discute quoi. tout se discute mais bu ñu ko discuter ba pare nañu nañu am tuuti euh, discipline. ñu topp ci li nga xam ne moom la moom la la chef wax. parce que tamit man gëmuma ñi naa euh, ah, liberté si liberté am na. liberté am na mais dafa fekk ni ay nit aussi boo ànd ak ñoom. da ngay dox doxinu ku nangu démocratie. Euh, bu fekkee ni waxtaan nañu ba ñu ëpp déggoo ci benn nit président de la république wala président suñu coalition ne kii la même boo d'accordul démocratie moo lay emporter am na ñoo xam ne d'accord ñu ñu ngi refaan tey mm-hmm. d'accord ñu ma nekk maire wateeluñ ma mais démocratie moo tax dañ ils sont obligés ñu topp ci ma nekk maire am noo xam ne aussi président de la République pareil am na ñoo xam ne woteeluñu ko mais terewul nag démocratie mooy leen di imposé Macky Sall nekk président de la République. dans le groupe aussi dans le groupe Benno Bokk Yaakaar. Mhm. je pense que bu ñu waxtaanee ba déggoo même ñi ci àndut dañu war xam ne ils sont minoritaires ñu ñëw fekk si la majorité. Mhm. c'est comme ça que fonctionne euh, un groupe. sinon. que bu kenn ku nekk de son côté. Mhm. loolu day affaiblir groupe bi et baaxul. lu baax et justement euh, la coalition Yewwi Askan Wi nee nañ le réseau des élus du Sénégal comme AMS dafa lajji ñoom boobu la ñuy indi teg ko comme ça euh, titaalal ñëpp loxo pour ñu ñoo bokk si alors déjà ce commentaire ci euh, li nga xam ni moom moo jëm euh, le réseau des élus du Sénégal mel ni démarqué wu ci AMS est-ce que loolu lañ doon xaar ci ñoom. politique politicienne la. Euh, c'est en fait c'est ça. ah ñoom nee nañ AMS. demul kay mais bu ñu nee AMS dafa laaj. nañu wax li tax AMS laaj. xam nga Mbemba euh, loolu aussi il faut ma ci attention sénégalais yi. Ah. opposition day jékki-jékki ne Mbemba baaxul mais il ne dit jamais au Sénégal li tax Mbemba baaxul nangam baaxul rek ci la ñuy yem ñoom mais il donne jamais d'argument boo nee lii baaxul da nga naan lii ak lii ak moo tax baaxul boo nee AMS dafa laaj da nga naan lii ak lii ak lii moo tax AMS laaj mais ñoom ils sont dans la politique politicienne ensuite ce qu'ils font là. ça ne nous concerne pas nous ça ne concerne pas non plus l'État alors que l'association des maires du Sénégal concerne l'État attention association des maires du Sénégal dafa concerner État dafa dafa am une légalité qui lui permet même de recevoir de fonds de dotation okay. AMS mhm. day recevoir bu ñuy jot bu parce que ñoom dañu jàpp ni AMS AMS AMS su Benno Bokk Yaakaar non non non non c'est faux déjà AMS ba ñu koy constituer le trésorier je me rappelle le trésorier était un maire. il s'appelle Ablaye Diop Ablaye Diop le maire à l'époque il était oui. il était au PDS. <laughs> il est toujours au PDS. voilà et il est le trésorier de de l'AMS. c'est-à-dire c'est des gens qui sont venus qui veulent euh, ñoo xam ne pour ñoom dañu jàpp ne àdduna day soo ko commencé lu dul ñoom baaxul mais c'est de la politique politicienne. kon ils vont rien proposer à la place. ah non mais ñu nous nous nous sommes républicains nous nous sommes dans de droit. association des maires bi nga xam ne moom la état reconnaître ñun ci boobu la ñuy toog ci boobu la ñuy nekk keneen ku bëgg a créer say fu bopp mais tu le crées mm-hmm. mais ça ne nous engage pas ça ne peut pas engager l'état non plus mënu engager l'état du Sénégal mm-hmm. ku mu neex nag même su ma neexoon sax man suba ma xëy créer man ak sama benn copain ak beneen dof ak association ak maa jigi géy ak keneen ak ñetti dof rek ah ñu créer suñu fi bopp on est dans un pays libre hein démocratique chacun peut faire ce qu'il veut mais li may déplorer mooy la politique politicienne ce populisme nouveau là politique bi moo bari. c'est trop c'est trop finalement c'est le peuple qui perd c'est le peuple sénégalais qui perd maa ngi gis benn maire peut-être je ne vais pas tout nommer son nom. <laughs> je ne vais maa ngi gis muy jéggalu Alioune Sall naa maa ngi koy balu ak yow mën nga topp nit ki pendant des années lu bon lu ne nga teg ko ci daram te tegoo ko fenn lu bon lu ne nga teg ko ci deru njabootam te tegoo ko fenn. sous prétexte que da ngay politique rek naa ko taqal naa ko tilimal naa ko salteer pour nit ñi bañ ko bëgg ma léegi bala nit ñi ba ba ko nit ñi folee fal la nga ne maa ngi koy jégalu mais il faut dire d'abord au Sénégalais que kon li ma doon wax du dëgg il faut dire aux Sénégalais damaa bëggoon ngeen woteel ma bañ ko cest à Sénégal moo war a dépasser fu ñuy nekk ki yàqe daru nit. Mhm. politique politique politique ci programme ñun adversaire bu ñu amee adversaire politique nanu jàmmaarloo ci ay idées ci ay gis-gis. ay doxalin ci réew mi mais jàpp deru jàmbur d'ailleurs je mooy temu gàmmu gi ah <laughs> je pense mooy temu gàmmu ren bi Tiwaawan justement oui voilà maanaam nañu nañu nañu muccal jullit ni nun ci sunu làmmeñ mm-hmm. mais jàpp deru jàmbur bu dégg bëccëg ah. lu bon lu ne nga yàq ko ko te tegoo ko fenn lu dul parce que day politique may politique li mu yor laa bëgg mais mais où va ce pays je nous regarde yàlla ak ñuy gis. te ñi naa politique àdduna lay c'est faux politique dafa dem ba àllaaxira nit ki jur ay doom ay doomam di ay nawleem nga di ko jiñ sàcc lu ne nga jiñ ko ko guddeeg bëccëg ay doomam di ko dégg papaam di ko dégg yaayam di ko dégg nga bëgg ne politique moom c'est faux ça loolu du politique. Hmm. musiba la loolu du politique musiba la. nañ moytu loolu. fu jëm ak tey kon dérive yi ko ci wàllu droit vers bu ñu ressaisir wut sénégalais yi àtte askan wi di àtte di. taxaw ubbi ubbi seen bët xool gis xool ñiy yàq xool ñiy defar ñiy yàq ñu tegaleen na le mhm. ñiy defar ñu ànd ak ñoom on va tout droit vers le mur mhm. et bu ñu deful ndànk sous peu sera trop tard te li gën a yées ci askan mooy ñuy seetaan une minorité les politiciens une minorité politiciens ils sont une minorité mais bu leen askan wi seetaanee wala topp leen ci yenn populisme ba ñu taal réew mi ba ñu a réew mi ci guta mais ce sera la problème la population euh, politiciens yi dañuy ñu ci bëri dañuy wax rek wallahi lazim dañuy soob <laughs> waaye ñu ci bëri jëloon ay commune tey. ah ñu ngi bëgg a dee de. baadu ay jafe-jafe la ñu am bëgg a dee. <laughs> la ñu wax. naan nan xam nga boo réeré bu suur rek te sa. portable waaw naa jox leen ma naa maire bi baaxul di ko saaga guddeeg bëccëg di saaga ministre bi guddeeg bëccëg ba ñu jox la mm-hmm. nga xam <laughs> nga xam. ah ñu ci bëri du dañ doon dinaa def lii dinaa def lii dinaa defuñ dara. léegi lan ngay xaar ci ñenn ñi cumul de mandat député maire Pastef ñoom ñoo waxoon ni du ñu def loolu waaye naam nee nañ nangu nañ ñoom ñoo ko wax dinañ respecté engagement yi wala gor sa wax ja. gor sa wax ja maintenant ngor a leen tënk waaye du du du du du du du du du du du règlement. règlement bi terewul leen. Mhm. cumul de mandat. ñoom kay engagement bi waaye fi mu ne ngoro leen ku tere parce que ñoo ko waxoon. Ah. nañ seetaan ba xam. Ah. mais en tout cas règlement bi moom terewul leen. terewul leen bu la neexee ñu nekk député maire. bu la neexee ñu nekk ministre nopp li nekkul woon seen engagement la maire. <laughs> non ñun du suñu engagement. moom du suñu engagement. Euh, mais euh, jeune ne sais pas euh, peut-être on pouvait réfléchir la dessus aussi. Mm-hmm. jéem a dem dans ce sens-là. mais régler ko une bonne fois mu jeex. waaw régler bon régler ko mais je pense qu'il y a des yoo xam ne aussi cumuler ko wàññiwul dara. député maire député maire je pense c'est faisable. député maire c'est faisable. du problème du continuité la problème par contre ministre moom. ministre xaw na diis. ñu teggi ko. waaw ministre maire moom. man je pense que mënoon nañu peut-être def. parce que li ngay def ci ministère. ay app moo gën ci ci moom ministre moom boo ko booleeg leneen diis mais député maire je pense c'est faisable. maintenant tant que Euh, règlement bi aayewu ko aussi. ku mu neex nga def ko. alors euh, dañuy euh, dalal docteur Djibril Thiaw responsable politique nga itam dans le département de Diourbel. Bambey Bambey ju du moins département bu Bambey président de la République taxawal na gouvernement bu yees Amadou Ba mooy premier ministre bi déjà ban commentaire ngay njëkk def ci li nga xam ne moo jëm ci gouvernement bu yees bi. waaw bon en fait féliciter le président de la République. ci gouvernement bi mu taxawal euh, ñaanal ko yàlla aussi yaakaaram bañ a tas ci ñi mu tànn parce que bon day am yaakaar rek ah. waaye day am yaakaar ci Mbemba am yaakaar ci Massamba am yaakaar ci Makhoudia ainsi de suite. vous le choix de Amadou Ba. ah oui si Amadou Ba kii euh, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de que lui Amadou Ba avec son parcours. surtout quand on est dans une crise économique mondiale. waaw il est bon que ñu am benn profil bu mel ni Amadou Ba. mu bañ di jàng mu bañ ñëw di jàng il sait déjà ce qu'il doit faire donc Amadou Ba man je suis tout à fait d'accord sur son choix euh, yaakaar naa aussi président de la République xam na xam na ko bu baax parce que fréquenté na ko lu yàgg. xam na lu Amadou Ba man ak lu manut donc man ànd naa ci loolu même les autres membres du gouvernement hein. tout à fait d'accord parce que tamit euh, wax naa ko benn benn collègue. maire dama ko ne fan yi ñu toll président de la république Macky Sall dal dal dal la soxla. dal waaw maanaam ñu bàyyi ko ak xelam. mu liggéey mu liggéey bu mu bëri ay contrariété baaxul fan yi moom d'ici deux mille vingt dafa soxla xelam yépp tous ces esprits moo tax quand je vois des gens di taper sur la table des gens même qui ont perdu leur département hein. naan lu tax président joxut ñu ministre lu tax na je suis pas d'accord gis nañ ko déjà xawma yéen la wala seen ndaw ci diwaanu Jurbel boobu am na ay ndaw yu génn amal jano ak taskatu xabaar yi ñu ne ñoom kontaanuñ bu baax parce que euh, ministre Mor Ngom euh, lu tax duggul ci gouvernement bi justement. ah loolu ñoom la engagé. Ouais. mais pour man daal euh, président de la République temps yi moom ku ko bëgg a dimbali bu ko laaj dara seetaan ko rek mu def ak xelam. président la république ku ko bëgg a dimbali seetaan ko même bu nekkul woon période bi nii am na yenn situation yoo xam ne boo duggee ci élection am noo ci génnee waroo laaj dara. jàngat nga war toog di noppi. daf jàngat. waaw non seulement daf jàngat mais euh, man je pense que boo demee ci élection perte ba perte sa bureau de vote waroo taxaw di laaj naa da ngay dugg ci ci gouvernement surtout nag temps yi ñu toll président de la république soxlawul tey lu lu lu koy distraire nañ ko bàyyi mu concentré wu. ku mu wóolu ba fal la on t'applaudit pour bu bu ko keneen doyee mu dem def kooku leneen mais fii ak deux mille vingt quatre bu ñu ko teg benn pression te boo commencé di ko laaj rek naa naa naa am nangam naa def nangam. yaa ngi koy teg pression. mais est-ce que boobaa yéen ñi nga xam ne yéen koy jàppale ci département bu Bambey yéen ak euh, yow docteur Djibril Thiaw ak Mor Ngom yéen déjà ak ni euh, nga xam ne moom moo jëm ni ngeen di ko wujjee bi ngeen di wujjee ci wàllum politique bi foofu. justement est-ce que nekkul tamit loolu du indi problème ci département bi. ah si ku ku ko moo waral ñu ñu def investiture bu baaxul ba perte département de Bambey. kuje googu moom yàqal na ki saal lu bëree bëri ci département de Bambey parce que y a des départements xam ne Mbemba. yow da nga jàpp ne c'est Mor Ngom qui est le responsable. ah c'est lui qui a les investitures donc il est l'unique responsable ki nga xam ne yow yaa tànn yaa ne diw ak diw diw ak diw moomu mënuñu sax gagner seen commune mënuñu sax gagner seen bureau de vote qui est le responsable du man de xanaa man tànnu ma ba pare gagner naa sama commune ah ma gagné naa sama commune. le maire de Ngo de de de de de Gawane Ndongo Faye tànnut gagné na commune kon yàqut dara ah euh, le maire de Ngoy Elifal tànnut na commune kon yàqul dara waaye ñi tànn ba pare ñu tax gagné seen bureau de vote lu yàqu ñoom la. te président de la république soxlawul loolu. kon bu ñu amee lu ñu a la département de Bambey était de main. waaw bu ñu amee lu ñu war a situé foofu la. foofu la faut situer les responsables là où ils sont sinon boo koy wëri feneen da ngay da nga moom mu ngi mu ngi mel ni nga soj rek. Mhm. di di diwoo alcool doo wér wala nga am góom di naan di naan litaakool <laughs> doo wér du wér waaw da ngay faj dangay faj feebar bi bi nga bi la dal ngay faj comme comme tey nga ne yow yaay coordonnateur bu euh, département APR bu Bambey est-ce que tey le mieux jotul nga sol sa daal itam dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di acteur politique ah man maa ngi waxtaan ak ñil ma nangul parce que politique aussi du armée politique du armée armée le général ku boo nekkee ci biir armée bi boo nekkee ci biir contingent mu neex la mu naqari la moo la yilif waaye politique ku la neexut du la yilif man ñi nga xam ne nangu nañ ma yilif leen maa ngi wax ak ñoom ñi ci des ma bàyyi leen keneen yilif leen mhm. c'est comme ça moi je suis démocrate <laughs> waaw mu ngoog démocrate nga ñu ngi ne itam euh, gouvernement bi gouvernement de combat përëb rek ñu def concertation waxtaan euh, njëg yi dina wàcc ñi ainsi suite est-ce que li ngeen jotul euh, defar douze ans wala dix ans est-ce que di ngeen ko def ci quinze mois yi des. am ah, mais dix ans yi ñu fi nekk nii mais on a on a bien travaillé. mais dëkk bi ba léegi askan wi ñoom sentir mais mais mais non xaaral dafa ndànk on a très bien travaillé euh, deux mille douze ba léegi mais dañu maintenir les prix amul yenn inflation yi amul yenn hausse de prix yi ba pare boole kook di def ay infrastructures de qualité ay stade ay route ak leneen ak leneen mais stade bi ñu ngi ko tabax Ablaye Wade tej ko amul dara. ah si si est-ce que mi ngi génnee ah, rentabilité ah si ñu ngi fay non xam nga rentabilité bu ñu fàtte ne rentabilité du xaalis kese non du xaalis kese mais notoriété rentabilité la le fait que ñu ne Sénégal am na tel stade le fait que ñu ay égyptiens ñëw fi ñu ñu recevoir dans un cadre boo xam ne képp kuy footballeur da nga koy rêver am. mais loolu loolu loolu loolu rentabilité la ensuite depuis boobu lañ ko tëj ensuite ensuite non saa bu ñu amee match ubbi ko même duñu ko ubbi parce que amuñu match ah loolu saa bu mais saa bu ñu amee match dañ koy tabax noonu rek bàyyi ko noonu mhm. ensuite récemment la Gambie suñu match dafa daje moom amul stade bu kaaf bu kaaf ak homologué mhm. mais ñu jox ko stade Lat Dior Thiès ñun ah. ñu football fii ñaajo loolu honneur la Ah, honneur la lu am solo la donc notoriété boobu ñu xam ne la Sénégal dispose d'une infrastructure de dernière génération mm. tey bu ñu nee retiré nañu la CAF à la Guinée Sénégal xelam di ci dem pour jël ko mais c'est parce que quelque part xelam a ngi ci stade ñaajo boobu est-ce que pare nañ ñun tamit mais en tout cas suñu xel a ngi ci mais est-ce que ñu pare aussi di si la boo amee jam ñaajo homologué am Thiès homologué peut-être boo amee yeneen deux trois boo dem boo boo fexewoon Ziguinchor ñu homologué ko homologué Diourbel homologué Saint-Louis Kaolack ah ak mhm. Kaolack mais ça fait le ça fait le ça ça ça mais kan vingt quatre équipes monsieur le maire mais yooyu est ah, si man je pense que on peut avoir le temps de finir tout ça mhm. parce que tamit attention hein suñu stade yi baax nañ de parce que déjà infrastructure bi la socle bi nga xam ne moo fi war a nekk mu ngi fi. Mhm. li ci des peut-être ay réflexion lay doon ay euh, euh, normaliser yenn kii normaliser pelouse bi voilà donc c'est des choses yoo xam ne. Mhm. pratiquement en tout cas ce que je mooy stade du Diourbel. mën nañ ko fi defar bu ñu homologué ko. bu bu bu bu bu Kaolack pareil. Mhm. bu Ziguinchor pareil bu Saint-Louis pareil bu Louga pareil. yi moom c'est des stades que je connais. kon da ngay ñaax suñu autorité. Ah ñu dem ci ba ah jeex ah oui nañu dem nañu dem ba jeex. Ah tey plus de quarante mois ñu nekk leader en Afrique la première équipe africaine. Mhm. am le ballon d'or africain. am le meilleur entraîneur africain. Mhm. nekk champion d'Afrique tout est possible. waaw tout est possible. man je les encourage pour ñu ñëw. mu nga ñu ñu jouer CAN bi Sénégal. ok jeexale benn ponk bi ci politique. Euh, politique euh, gis nañ euh, li nga xam ne moom moo jëm ci troisième mandat bi ku nekk ngi ci artu président de la république Macky Sall dafa bëgg a def ñetteelu mandat waru ko def Amadou Ba mooy dauphin dauphin bi alors politique bi <laughs> déjà si seen camp yéen lan la da ngeen di valider choix troisième candidature. waaw ma laaj <laughs> ma laaj. waaw président Macky ñaata mandat la defagum. laaj naa la ko. non yow laa koy laaj. non man laaj naa la ko laaj naa la ko yow parce que troisième man je pas encore compté. waaw man compté gu ma. léegi laaj naa la ko yow mi compté ñaata la defagu. waaw ah, léegi ñu ne. Ah. bëgg na ñetteelu mandat boo xam ne waxagul mais kat mais est ñaata la defagu mu bay bëgg ñetteel. Hmm. <laughs> non pour être plus sérieux waaw euh, là nous nous restons dañuy déglu président de la république. fu mu leen joxoñ ngeen dem. Euh, dañuy déglu président de la république te ni ñu koy dégloo aussi duñu ko duñu ko teg pression mooy li ma la wax sànq. Hmm. président soxlawul pression jamono yi ñu toog nañ ko bàyyee xelam le moment venu dina wax li mu war a wax naa ko ba tàyyi président Macky Sall ko am fit la bu bëggee wax wii ragalul da wax wii bu bëggee wax non ragal da wax non président Macky Sall ragalul. mais tey ban ñun ñaan ak moom ragaluñ. waa tey ban position moo moo. non nii wii nii non nii wii nii non ah yow da ngay adopté nii wii nii non nii wii mais ensuite pour dama koy non seulement dama koy adopté mais xamal leen ne président ragalut du ragal. déjà am it déjà am nga opposition bi d'accordul déjà ci ñetteelu candidature bi nga xam ne moom la ñuy ruuma daat waaw yi ñoom ñoo xam am nañ ci droit bañ ci d'accord mais président ragalut nii wii nii non bu wax jotee dina wax te am na lu mu wax lu am solo Macky Sall c'est un démocrate c'est un républicain président Macky Sall démocrate la. républicain la. ah kon est am na fit est-ce que du wax tey ni dew ma mu géew bi leer carte bi leer. bu fekkee ni daa war a wax bu wax dem ma jotee dina ko wax bu fekkee daa wax damay dem. Mhm. bu damay dem jotee dina ko wax. mais pour le moment. Mhm. bàyyi leen ko mu concentré wu. c'est yéen xamu ngeen sax li nekk ci ci perture bi ab président surtout jamono yii na sénégal yi bàyyi ak Macky Sall xelam crise mondiale bii. mu xool lan la ciy muccale Sénégal te mu ko ci muccal nag yàlla xam na ne récemment rek wax naa ak sama benn cousin Ngom bu nekk Italie maa ngi koy nuyu au passage il me dit que moom bu déggee Sénégalais yi ñuy kaas day jaaxle dama ne en y a certains prix qui ont triplé waxuma la doublé tant bien que ñu ngi essayer di di di di di. mais na quand même il faut l'avouer ah non na. Hmm. mais aussi nañu avouer que ni état aussi day yëg méttit boobu. xam bu ñu nee bu ñu nee état renoncé na tel pour wàññi prix yi xam nga ce que ça veut dire li état waroon dajale pour fay ci fonctionnaire yi li état waroon dajale pour tabax ci tëli li état waroon dajale pour jàppale baykat yi wàññeeku na état yoru garabu xaalis taxe yooyu muy teggi moom la yaakaar moom la daan dajale pour tabax tëli pour jàppale béykat yi jàppale sàmmkat yi fay fonctionnaire yi loolu nag bu au fur mu koy teggi ci yenn produits yi day gën a néewal. li mu doon am di ko gën a très créer ay tension de trésorerie mhm. pour fay fonctionner à la fin du mois c'est-à-dire quelquefois aussi fois il faut que peuple bi di nangu xool la réalité en face mhm. jamono yu ñu toll lii moo am c'est ça la vérité les temps sont durs pour tout le monde y compris les États-Unis première puissance du monde y compris la Chine y compris la France y compris le Japon y compris l'Allemagne donc forcement les temps seront pour le Sénégal. Mmh. maintenant maintenant ci période bu mel noonu aussi ci la état di profito gën a dugg ci sobriété parce que bu ñu nee les dure aussi ñu gis ministre bi muy dund dans la bamboula. Mm-hmm. nit ñi dañu mën a gëm ne les temps sont mais bu ñu nee les temps sont mais est-ce que le tey état rationaliser dépenses yi rationaliser surtout ñu gën a rationaliser rationaliser dépenses yi de sorte que même les ministres même les député même les hauts fonctionnaires sentent que les temps sont durs waaye si les temps sont durs yow nga def leneen pour peuple bi euh, ñu gis ministre bi mu nekk ci bambulaa di voilà duñ ko sentir duñ ko sentir di maye xaalis à gauche di voilà yooyu yooyu. doxul quoi waaw population bi dañ naan les temps ne sont pas durs ñii dañ ñu yàpp mais heureusement. heureusement de plus en plus man je pense que ñi nga xam ne président Macky Sall ñoo ngi leen di tànn di leen def ministre. Mm-hmm. de plus en plus ils sont sobres. yenn folie des grandeurs yi ma daan gis yi ma daan dégg vraiment wàññeeku na bu baax et c'est tant mieux. Mm-hmm. loolu rek mooy nangu mooy tax askan wi nangu ne les temps sont madame Aminata Touré ku leen sonal la fan yi parce que troisième mandat bi nga xam ne junj naa ko sànq nekk na loo xam ne dafa taxaw fësal boppam ne moom àndu ci moo tax tey ñu teg ko li ñu ko teg dafa mel ni euh, xaw na jaxase APR. ak benn bokk yaakaar non mënul mënul jaxase APR mënul jaxase benn bokk yaakaar euh, mais foofu aussi euh, dama koy faral di wax y a personne yoo xam ne duma leen defendre du ma défendre Macky président Macky contre ces personne la Euh, Aminata Touré euh, bon peut-être dinaa def appel pour qu'elle revienne à la raison tout court mais du ma du ma ko du ma ko attaqué. parce que teraanga bi mu seq président Macky Sall sequma ko président Macky Sall ni mu jegee président Macky Sall ni président Macky donc xëy na réeroo ñëw tey suba mën nañu juboo ñi ci nekk di wax lu lu lu kii. lu ñagas di lu ñagas ñooñu au contraire. nañu gën a modérer seen langage. Mhm. Aminata Touré aussi na xam ne président Macky Sall defal na ko teraanga lu yàgg yàgg defal na ko teraanga ay yoon te ba mu koy defal teraanga bi aussi am na ñu nekkoon ay sénégalais comme moom. Mhm. jël ko joxe ko ñoo xam ne gënu leen woon mérité teraanga boobu kon na delloo si xelam. Euh, xam ne àdduna moom lu yàlla bindul sa jë doo ci jot mhm. te waaye lu mu bind sa jë di nga si jot donc man na tempéré wu bon retrouver euh, sa famille l'Alliance pour la République la Benno Bokk Yaakaar je pense que Macky Sall frère am la je que war nañu mën a juboo ci yu bëri mais quant may may attaqué euh, Aminata Touré ndax Macky Sall non du ma ko def c'est c'est frère ak sœur la ñu. nangu nga ni ñu jege ñante jege ñu ma ci jege ñu ma ni Aminata Touré jege ñu ma ni Mac président Macky Sall teraanga bi ko makis président Macky Sall defal. Mhm. defalut ma ko ainsi de suite. waa président groupe parlementaire bi di euh, maître Omar Youm nee na bu euh, respecté wul ligne bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar tëral na ko bu jaaree feneen. ñoom dàquñu tey euh, post député bi mu daal di koy joxe ànd nga ci loola. Euh, bon poste député bi bu fekkee ni dafa dafa dafa démissionné de l'APR daf koy perte. règlement intérieur. loolu la wax waaw donc vraiment euh, bu fekkee dafa démissionné là il perd elle perd le, le mandat de député mais encore une fois man duma ma ko du ma ko du ma ko attaqué. <laughs> mais est-ce que président kii nag Ousmane Sonko nag. bu waxee président Macky dara. ah là là mën na damay défendre président bu ko xalifa Sall defee wala Barthélémy Diaz mhm. là damay défendre président Macky Sall mais y a certaines personnes yoo xam ne ci entourage du président lañ nekkoon mhm. bu ñu fay jógee aussi mhm. man damay wax lu rafet pour ñu dellu siwaat mais duma leen attaquer pour li gën a li leen gën a soril. loi d'amnistie Karim Wade euh, ak xalifa Sall bien vrai que euh, amnistie euh, xoolul ay nit ay fee lay xool yow vous validez le choix bu ñu ko defee ànd nga ci. amul ci benn problème ànd naa ci xam nga lu tax xalifa Sall suñu suñu adversaire la l'autre Karim Wade suñu adversaire la mais même li ñuy nekk nekk suñu adversaire. bu fekkee dañuy waxal rek yàlla am na ñu leen yaakaar ci réew mi bëri nañu ànd ak ñoom ñooñu il faut leur donner la chance le jour ji ñoom am choix. modifier code électoral bi est-ce que gënul gaaw. non man nu ñu ko defee baax na l'essentiel mooy euh, Karim Wade ak Khalifa Sall ak ñeneen sax ñu dul ñoom. Mm-hmm. ñoo xam ne xëy na am na sénégalais yu yaakaar ne war nañ mën a yor réew mi mm-hmm. nañ leen may chance ñu ñëw bokk. bu fekkee ni Sénégal yi voté nañ leen xayrun bu leen bu ñu leen voté aussi ñu xam ne noonu la. mais am na ñu jàpp ni amnistie bi ñuy waajal am na lu ñu ci a laaxaale. muy lan mooy ñi nga xam ni euh, am na lu leen toppee ñu daal di effacer mbir mi. non euh, non non non. opposition dañ koy jubal ñoom. door dalul seen xel bu baax. xam nga man quelquefois je ne comprends pas les sénégalais certains sénégalais. Hmm. Euh, kan lañ fi épinglé kuñ ci war a mën a laaxaale kan. mais kenn personne ah à ma connaissance à ma connaissance à ma connaissance na ñiy wax loolu c'est toujours dans la politique politicienne. politique la politique politicienne malheureusement <laughs> te il faut ñu dépasser loolu bu ñu bëggee Sénégal génn ci guddi gi. Hmm. il faut ñu de plus en plus ñuy suñuy débat politique. nekk des débats d'idées mais vraiment yenn wax yu sew yi moom. vraiment man je suis pas je pour. doxul ah doxul non non doxul daf ñuy tardeel. <laughs> daf ñuy tardeel am na solo am na solo docteur ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. Ah, ci ni nga nangulee. bi <laughs> waaw waaw. ah <laughs> am solo moo tax xam nga moom bu amee solo rek. temps day gaaw jërëjëf donc vraiment ma remercier waat la. nuyuwaat euh, askanu Sénégal. Mhm. Euh, askanu Refane. Euh, tàllalaat leen loxo rek. ñaanal leen yàlla aussi yàlla def fa sutura. amiin def ko ci département de Bambey def ko ci Sénégal ñaanal le président de la République Macky Sall ñaan aussi vraiment euh, guerre ba nekk Ukraine jeex. Euh, li nga xam ne moo nekk. ñu ne moom ngeen di taafantaloo sax ne dëkk bi dafa métti. taafantoo c'est tout le c'est tous les pays du monde c'est tous les pays du monde donc vraiment loolu yàlla nañu yàlla te ko yàlla teggi nga xam ne àdduna bi dellusiwaat ci jàmm. Hmm. Covid bi aussi jeex. lépp loo xam ne day indi gàllankoor rek mu jeex ba yàlla delloo si ñu ci sutura. Mm-hmm. Sénégal yàlla aar ko. aar ko sàmm ko ba li nga xam ne dañu koy dégg feneen ci ay musiba mu bañ fi yegg si. Mm-hmm. mais aussi ma ñaaxaat sénégalais yi jamono dina toll foo xam ne il faut ñun ñëpp ñu takk suñu ndigg takk ceinture yi la jeunesse ñu bañ a xaar. Euh, xaw ma comme loo xam ne day taw rek ci suñu kaw <laughs> déedéet la jeunesse. waaw ñu dem uti ji ko ñu dem nañ dem wuti ko ñafe ji ko. Mhm. nañ dem ñafe ji ko état itam yombalal leen ko. non si si si état état dina leen ko gën a yombalal parce que créé na ay instruments yu bari yoo xam ne je sais que nit a ngi tey di saaga gouvernement il n'a jamais essayé dem ci instruments yooyu musul essayé dem DER mosul essayé déposer projet demul Prodac. Mhm. jëmul dem bu def musul déposer pour formation 3FPT il n'a jamais demander à l'État mais mu nga toog fa mu toog di naan ataaya di saaga État donc loolu aussi ñooñu aussi ban solution nga am si ñoom. nit day jub mais malheureusement populisme bi léegi dafa gëmloo yenn ndaw yi ne leen lu leen naqari rek Macky Sall leen ko teg. leen <laughs> toog leen rek. xéewal gi daa war a ñëw moo tax ñëwut <laughs> alors que alors ni ma ko oustaz Abdou fay bu reefaan doon wax yal na yàlla yokk leeram taas na ci barkeem ndaw day waajal boppam am na ñoo xam ndaw yoo xam ne waajaluñu seen bopp de sorte que bu Senghor dellusi woon ànd ak Ablaye Wade ànd ak Abdou Diouf ànd ak président Macky Sall ñoom ñëpp ñu ànd di liggéey pour xool ay solution du tax ndaw yooyu génn ci parce que dañoo waajalut seen bopp. même constat fii nekk. waaw <laughs> même chose la ñuy def donc vraiment ndaw yi nañ jóg kenn ku ne waajali boppam kenn dem wuti ko. <laughs> bañ a toog xaar am na solo nañu nañ dem jëli ko. am na solo ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax docteur Djibril caw di euh, bokk moomeel bu refaan ñu amoon mbégte lool dalal ko ci émission gox bi fii ci rajo Rewmi FM ak Rewmi TV mbokk yi jolleex dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo ak Rewmi TV.